bonsoir chers téléspectateurs asalaamaaleykum mbokk ci xay di safo télévision Futur Média di ko seetaan à chaque fois mardi lépp lu nga xamante ni moom mooy touché suñu sport national muy làmb moom la ñu fas yéenee càmbar alors comme tous les mardis dañuy bëgg di indi ay euh, innovation de taille dañuy bëgg di leen bett dañuy bëgg tout le temps di def lu neex loo xamante ni boo leen koy seetaan passionné de lutte da ngeen ciy gis seen bopp bu baax a baax donc tey ay yu bees ñu indiwaat invité euh, aujourd'hui invité wuñ plutôt des champions tey du ñu invité ñu nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc bu baax a baax a baax a baax ci làmb ji te bu ñuy wax ñoom ñoo lay duggal ci biir arène bi tu as l'impression yaa ngi ci biir yow yaay bëre parce que tellement seen wax dañ dafa captivant tellement seen i wax dañ lay yóbbu fu sori ci biir arène bi ñooñu la Boubacar Diallo dalal tey ci biir seen émission L'Oeil du Tigre alors comme tous les jours je serai jamais sur le plateau je serai accompagnée des meilleurs ñi gën ci seen génération ñi gën a mën seen liggéey ñoom la ñuy accompagner tous les jours donc je vais commencer par ki nga xamante ni kooku la ñuy woyal woy bi nga xamante ni dafay daanu mel ne moo daan mooy suñu champion Moustapha Gueye bienvenue tonton merci Magnès maa ngi lay delloo nuyu mhm. di nuyu assistance bi yëpp pour ne pas monopoliser mbokk téléspectateurs yi asalaamualeykum. alors tey tonton Birahim Ndiaye nag malheureusement nekku fi tey alors am nañ beneen expert boo xamante ne moom moo fas yéene tey remplacé ko durant toute cette émission muy ki nga xamante ne mooy bokk ak moo consultant tout le temps di def li nga xamante ne moom mooy jël bi di Cheikh Tidiane Chérie Pauline bonsoir. émission euh, Birahim nag remplacé ko dana jafe waaye danañ jëm incha allah. incha allah bienvenue dalal ak jàmm. alors ki nga xamante ni moom mooy dalal suñu champion yu ñu invité tey ki nga xamante ni wax dëgg fa yàlla dañoo gratifié de sa présence parce que c'est un honneur partager plateau bi ak moom dama bëgg na ngeen tàccu ma bu baax le meilleur muy Boubacar Diallo. juste le temps d'amener un petit bonsoir comment on va. Vous bien. T'as la pêche Super, comme d'habitude. Ça fait vraiment plaisir de retrouver Femme Toon sur le plateau euh, de l'œil du tigre spécialement dans Sen Champion mbokk yeeg xaritu téléspectateurs yi salaamaaleykum ñoo ngi leen sa tur ak sa mhm. grand Tafa. waaw ma koy nuyu. kii moo ni moo daan. mel ni moo daan ëpp na. tàccu leen loolu ma xool tout se passe bien. Est-ce que vous avez vraiment la forme Non, j'ai la forme. Super forme. Alhamdoulilah. Je suis en compagnie de Cheikh Tidiane Diagne. Je suis très heureux. Cheikh Tidiane, maa ngi bég bu baax ana waa RFM. ña nga di sant yàlla naka le desk sport. ça marche très bien. Babacar Fall ne vous embête pas trop. bon Fall du man sonal na ma mais. yàlla baax mais Mamoudou Ibra Kane doit veiller à l'accoutrement de Babacar Fall. waaw ah, Babacar ay pain lay sam n'importe comment. <laughs> sinon lépp jaamu. waaw sant yàlla bu baax alhamdulilah. Euh, Fama Thioune. Mhm. nag dañoo am ay gan yoo xam ni ñëpp ils sont dans le monde de la presse. waaw nag dañu am franchement ay ndaanaan yu remarquable alors juste à les entendre. dañ lay dañ lay dañ lay yóbbu fu mhm. sori tu as l'impression que yow yaay nekk ci arène bi yow yaay bëre parce que tellement dañu captivant tellement seen voix macha allah dafay àgg fu kawe fu sori tey mënuñu woon am ay ndaanaan yu mel yu gën a kawe yi mënul woon nekk ça fait vraiment plaisir léegi-léegi Mao dañuy def benn jingle bu ndaw ñu daal di dellu siwaat nu yoog suñuy gan tey seen champion du yomb ci kenn beneen kàngam buy yëngu ci wàllu làmb rawatina ci wàllu animation ak reportage moom mi di Pape Mbaye mu ngi dóor carrière ràmb ca rajo Oxygène FM atum 2009 ak léegi laata muy dem fi nga xam ne mooy Convergence FM atum 2013 ak léegi nag mu ngi yëngu ci lépp lu aju ci wàllu làmb ci boobu la rajo di def moom tamit kem kattanam ngir mën ko jëmale kanam Pape Mbaye doon ku bëgg làmb lool mu jëlal ko tamit lu nekk mu ci faral di gëstu ci li nga xam ne dafa bokk ci taarixu làmb fii ci suñu réew Pape Mbaye fas yéene jàkkaarloo moom tamit ak ki nga xam ne mooy DJ Bou ci seen émission L'Oeil du Tigre wan askan bi lépp lu mu xam ci taarixu làmb fii ci suñu réew. Salif Ba nekk animateur de lit buy liggéey DTV ak Femme FM moom mi lay dóor carrière am ca Raay bi FM ci atum jot naa nekk consultant ca RDV ba atum 2009 2017 ak léegi. moom mii di Salif Ba mu ngi yëngu ci mbiru làmb fële ca DTV làmb fii ci suñu réew mu xam ko bu baax a baax doon tamit lu mu sopp di def kem kàttanam ngir loolee gën a jëm kanam kii di Salif Ba ñëw ci seen émission L'Oeil di Tigre fas yéene jàkkarloo ak Boubacar Diallo wan bi li mu xam ci mbiru làmb ak lépp lu koy jëmale kanam Babacar Diome doon tamit kenn ku ñu ràññee ci wàllu taarixu làmb fii ci suñu réew moom mi la nekk animateur ca Lutte TV com atum 2017 ak léegi boobu tey nag mu ngi def kem kattanam ngir mën a jëmale làmb kanam fexe tamit ba ñëpp ñu koy safoo wala sax ñu bëgg làmb rek ñu am li nga xamante ne moom la ñu bëgg mu aju ci wàllu animation ak wàllu performance ak itam wàllu taarixu làmb fii ci suñu réew Babacar Diome fas yéene teew tey ci seen émission L'Oeil du Tigre fas yéene moom tamit jàkkaarloo ki nga xam ne mooy DJ Boubs fësal li nga xam ne rek xam na ko ci wàllu taarixu làmb fii ci suñu réew ak lépp li ko mën a jëmale kanam Babacar Diome bokk ci seen invité tey Ousmane Diouf chroniqueur làmb la nekk ci RDV ak Dunia FM moom mi bokk tamit ci communicateur traditionnel yi faral di yëngu ci wàllu làmb fii ci suñu réew kii di Ousmane Diouf tàmbali yaram am ca Oxygène FM ca atum 2004 ba mu bàyyi ko Oxygène la dem fm def fa ñetti at. laata muy dem fi nga xamante ne mooy RDV atum 2010 ak léegi Ousmane Diouf bokk ci ñi gën a xam taarixu làmb ci chroniqueur sportif yi rawatina ñi yëngu ci wàllu làmb mu bokk tey ci invité DJ Boub si seen émission L'Oeil du Tigre ñu fas yéene waxtaane lépp lu aju ci taarixu làmb mu fas yéene ci fësal tamit li mu xam ci wàllu làmb fii ci suñu réew Fama Thioune gannaaw bu ñu amee mbégte bu bare bare bare lan mooy doon tey sommaire wu li nga xam ni moom moo di seen champion. alors comme tonton Mbaye Fall ni mu ci sonné à chaque fois dafay bëgg di ñu indi lu nga xamante ni dafay remarquable day bëgg durant toute l' émission yéen téléspectateurs yi koy seetaan ngeen captivé wu bu baax a baax moo tax daf ciy sonn donc tonton Mbaye Fall nag bëgg naa ngeen tàcc ko bu baax a baax muy suñu producteur exécutif. c'est la tête qui tourne. <laughs> c'est une euh, machine. et dictionnaire. day faal. ngeen fas yéene jàll ci li leen di xaaral xaarandi ci seen biir émission l'Oeil du Tigre tey bu Boubacar dina tàmbaleek ay champion di leen njëkkee ci li nga xamante ni moom mooy euh, question yu ci mel ni kii kan la wane ay image ñoom ñu fas yéene deviner ñan ñoo fas yéene nekk ci ginnaaw image yooyu bu ci jógee ñu daal di jàll ci turu mbër mi ak écuréem dañuy daal di joxe mbër turu mbër bi da ngay daal di joxe dañuy wane mbër mi nga joxe turam daal ciy teg écurie bi nga xamante ni ci la bokk culture générale alors culture générale c'est toujours bien de poser de question d'actualité wala lépp lu nga xamante ni rek day gën a tax suñu xelu mbëri di gën a màcc wala invité yu mag yi nga xamante ni moom lañ fi am suñu jugee ñu daal di jàll ci réglement buñ ci jugee ñu daal di jàll ci bàkk yi tegal leen ay wayu cosaan yu neex yoo xam ne da ngeen di deviner kan moo bàkk bàkk boobu buñ ci jugee ñu daal di jàllaat ci kii kan la alors dañuy daal di wane image nga daal di jël jël bët bi ci adéquat nga daal koy teg ci image boobu buñ ca jógee nag ñu daal di terminer ak li nga xamante ni moom mooy kii kan la ay image yu ñuy jaxasee def leen façon bu ne nga deviner kan moo làkku ci ginnaaw alors lii moo nekk euh, li nga xamante ni moom mooy seen émission l'Oeil Utile ci la ñeen indil tey spécial ci mardi bi alors su vous laisse ay Boubacar Diallo continuer ak ay champion alors ay gan yoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi dans le monde de la presse ñoom ñëpp dañoo nekk ci rajo ak ci télévision ba noppi nekk ci ay site internet seen xel xënaaj lool jëm ci li nga xam ni moom moo di làmb ñoom ñëpp daañu jongante tey jongante bu neex ñoom ñëpp daañu am confrontation bu safa safa saf ci kanam tuuti lay doon après bien sûr ce jingle à la régie Mao yéen tamit mën ngeen a ci seen salon c'est parti pour seen champion man dama di mbër moo xam ni kat yàgg naa lool ci atum 70 80 dama fi bëre ak ki nga xam ni moom moo di maam góor gi Njaay bëre ak góor mag fay bëre ak Robert Diouf ci sama carrière mbër après sax dama mujj nekk arbitre di arbitre làmb man sax ginnaaw gi dama fondé écurie man la kan ngoog ah alaaji Papa Mbay kooku kan la Euh, ci sama xalaat sama yaakaar kooku yàqu saar yàqu saar am nga fukki poñ tàccu leen ko de naa neex ma daal di dellu siwaat ci ñaareelu kii kan la si ñaareelu kii kan la mankat kat dama di ki nga xam ni moom moo di promoteur làmb bi njëkk boole ñii nga xam ni ñoom ñoo di samay mbër ñu daal di ñëw ci biir émission L'Oeil du man may promoteur bi nga xam ci biir émission lay du Tigre maa fi njëkk indi samay mbër ñu def face to face Babacar Diop. Abdou Aziz Ndiaye. déedéet du Abdou Aziz Ndiaye ku ko xam da ngay Alaaji Papa Mbaye. waaw Serigne Modou Niang. déedéet du Serigne Modou Niang. Ousmane Diouf. Luc Nicolaï. déedéet du Luc Nicolaï. Babacar Diop. Gaston Mbengue. déedéet du Gaston Mbengue. ah Saliou. Moustapha Guèye. déedéet du Moustapha Guèye. ah déet doy na. ku ne tontu nga ku ne tontu nga xanaa kay ma daal di ñëw ci tontu bi man may promoteur bi nga xam ci biir émission L'Oeil du Tigre maa fi njëkk indi samay mbër yoo xam ne dañoo am combat ñu def face to face. kan la ñëw na xam nga ko. Alaaji Papa Mbaye kan la. Sam Production. déedéet ah. sa production ah, man la Sidi Diakhaté nekk ca Thiès ah mbokk yi ñu daal di ñëwaat ci beneen question boo xam ni kii kan la laa leen di laaj mm-hmm. kii kan la man dama di promoteur bu ndaw dama di xale am jom lool bëgg nag di tourner di tëgg làmb ci biir banlieue bi dama fiy tëgg ay làmb bu bari ci biir banlieue bi dama fiy tëgg ay làmp te nag ñëpp dañ maa ràññi waaye nag dama nekk ñaareelu promoteur bi nga xam ne ci biir l'Oeil du bii man maa fi nekk ñaareel bu fi indi samay mbër ñu daal di ñëw ci plateau l'Oeil du Tigre jom Diom Sam Production mooy Sam Baye de Sam Production moom la kay am na fukki poñ Babacar sa yaram a ngi bëgg a tànk de mm-hmm. ah, am nga fukki poñ Babacar loolu baax na ba tey ci kii kan la boo dégloo laaj bi tuuti rek di nga xam kan la maa ngi yegsi ci làmp ci 1993 fi mu nekk ni dajal na samay ñeent fukki at ak juróom ci atum 2016 am naa fukki victoire ak juróom ñett ci làmp ji am naa defet maanaam juróom-ñetti defet ci làmb ji am naa ñetti combat sans verdict man la kat Babacar Diop. Balla Gaye numéro 2. dëgg la moom la Balla Gaye numéro 2 yoo. sawaay tàng na sawaay jàpp na format ah. ma ci kii la bii mooy question bu mujj ci kii la bi nga xam ne ci xel la bokkul ak kii kan la bi nga xam ni moom lañuy xool dama di journaliste ci presse écrite maanaam dama di journaliste boo xam ni damay bind def naa rajo def naa tele liggéey naa ci yéenekaay bii di Sud Quotidien def naa rajo bii di Sen Info def naa télévision bi di Walf TV Saliou Ba Mbaye Fall déedéet Mbaye Fall Euh, alaaji Papa Mbaye euh, sëriñ Mour Diop Serigne Mour Diop dëgg la moom la Serigne man maay journaliste bi nga xam ni man maa njëkk a bind ci istuwaaru làmb bi nga xamee ni histoire làmb am na ak léegi man la Serigne Mour Diop ma bëggoon ñu defal ko mention spéciale tàccul ma Serigne Mour Diop bu baax a baax a baax a baax a baax Mbaye Fall baa ngi nii bi ma xoolee livre bi dama si jàngat lu baree baree baree bari livre Serigne mu Diop bii ma gis si ay archives gis si euh, li nga xam ni moom moo di ay archives gis si euh, maanaam loo xam ni dama cee jàngat ndaxte lu may def dama ciy gëstu lu baree bari ma daal di ciy xool ki nga xam ni moom moo di Birahim Fall ñu koy wax booy Naar ndekete moom mooy premier fondateur loolu nga xam ne moom moo di écurie Fass ci livre bi laa ko jàngee daal di gis Alioune Petit Mbaye ak Boubacar Mbaye ñuy bind ñuy signé contrat ki nga xam ni moom moo di euh, euh, ki nga xam ni moom moo di euh, waa Action 2000 di signé diggante Tafa Gueye ak Tyson ci atum 1996 ci atum 1996 ki nga xam ni moom moo di suñu góor googu nga xam ni moom moo doon feu Papa Mbaye nekk ci kii di ibu Diop nekk ci ma gis ki nga xam ne moom moo di feu Papa bu caaro yi daanaan piir hmm. daanaanu làmb dëgg livre bi bi ma ko talee lii rek léegi lu bari laa ci jàng ndaxte su ma duggee ci dara damay bëgg di ci dem ba jeex hmm. ma bëggoon ñu defal ma ci diiru benn minute ñu tàccul ma sëriñ Mor Diop lu bare bare bare bare bare bare bare ma jàng ci benn chapitre mu ne la flambée des cachets maanaam cachets yi yéeg nañu fu mu toll cachets yi jëm nañu ci ay millions yu dul jeex may conseiller képp ko xam ni bëgg nga làmb la lutte sénégalaise racontée par Serigne Mour Diop mu xool ko ni nga xamee ni noonu laa demee gëstu ji livre bi euh, Serigne Mour maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax di rafetlu sa taxawaay di rafetlu archive bi nga fi bàyyi parce que fu ne dem naa fa di wut archive Serigne Mour jërëjëf euh, yow journaliste nga euh, noo gisee euh, livre bi ni waaw ah, déjà démarche scientifique bi parce que day war ni donte lamb dafa am benn kii bi nga xam dañ leen ko dañ si catégoriser mais quand même am na benn travail intellectuel bi nga xamante mën nañ ko ci def et je pense que Serigne Mour nga xamante ne c'est un na li nga xamante war na ko def et puis nga aborder benn chapitre mooy la flambée des cachets euh, doon na li nga xamante ne tey jii moo plombé l'arène buñ si jëlee tamit boole ci violence bi nga xamante ni daanaka bokk na ci li nga xam day gàllankoor euh, arène bi gis nañu que la flambée de cachets bokk na ci li nga xamante ne dafa gàllankoor arène bi te à cette période là ba muy commencé di am am na ñu bëri nga xam te jógoon nañu tàmbalee wax. Hmm. parce que y une concurrence déloyale bu amoon ci diggante promoteurs yi kii bu ñëwee joxe 10 que ñëw joxe 20 que ñëw joxe 30 que ñëw joxe 40. Hmm. donc gis nañu fi mu xam te fa indi làmb bi waaye tey jii je pense que à la raison pour am des cachets raisonnables sponsors yi dellu si waat ko daa defee ñu mën a am ay combats mag te ñu journaliste yi nga xamante ne sport yoo xamante ne mënoo xam kan la faral. am na solo trop ba muy dugg ci làmb yi di ci indi touche intellectuelle dafa yàgg te gars yi comprendre ñu ko. ci bind ci wax en français plein de choses. man mi bokk naa ci mbir moom mooy le premier journaliste bu ma njëkk invité rédaction ma toog mu pose ma question defal ma interview muy génn mu jox ma paas. Mm-hmm. dama mbër mu ndaw nga xam naa ne amoo paas. ndeysaan loolu lu raar la. ndeysaan ay journalistes yu koy def. donc Serigne Mbour làmb daf ko ameel je pense que il doit pas être trop content ci làmb ni mu doxee parce que xalaat rek xel bu mu am ci làmb euh, dafa dépasse sax peut li ñuy wax làmb. donc c'est vraiment moniment la moom Serigne Mbour bu ñu ko mënee euh, catégoriser quand même. Ah. mu ne ma fii daf may présenter mbër bu ñuy wax Ibou Senghor champion boo xam ne mi ngi jóge Fatick mu ne ma pël bi na nga tudd. Mm-hmm. pël bi na nga tudd. Très peu d'amateurs de lutte se souviennent encore du champion Ibrahima Sène, mm. plus connu sous le nom de Ibou Senghor. Pourtant, cet ancien sociétaire de l'écurie Sérère est l'un des plus grands champions de lutte sénégalaise avec frappe, mais également l'un des meilleurs poètes de l'arène, créateur du fécond Bac. ah boobu nga xam ne moom la ñuy wax pël bi na nga tuut. nga waaw ah. jam yoroo jam Sadio. waaw ci les man jam dem ko. Ah. daal di commencé lim. Ah. diw sàngam xam na nu tudd. kooku dee maa ko ndax daan ko. Cheikh Tidiane xam na nu mu tudd. kooku dee maa ko ndax daan ko en tant que séeréer. buy bàkku ak olof bàkku yoo xamante ne vraiment. dafa riime woon. mën a fecc aussi bari bayre de kon nag je pense su ma jumul dëkk bu tudd Diouroup wala à côté de Diouroup ah. Diouroup mu ngi noonu voilà. dëgg la mais loolu mais mais dégg ma Youssou Ndour way ah pël bi na nga tudd jëm yaroo jëm saajo su lay jëm pël bi na tudd jëm yaroo jëm saajo su lay maan jëm dembo pulo chapitre Serigne Mour merci beaucoup merci di ko gërëm bu baax a baax a baax di ko sat benn parenthèse la woon alors euh, di njëkk a wax ak ki nga xam ne moom moo di Moustapha alors Babacar Diop mi ngi toll ci 20 points bi ñu duggee ci kii kan la dans le kii kan la y avait 5 questions daanaka am na benn boo xam ne trouvé wu nañ ko trouvé wuñ ko Babacar jël 20 points Ousmane dugalagul point Saliou gul point Pape euh, Mbaye daal di dugal moom tamit 20 euh, points daanaka ils se sont partagés des points. xaw a yéem sax xaw ma jaaxal mooy Ousmane daal tekkaaral gu mu tekkaaral. yàlla. dafa yaakaar ne yaay battre record bi ah. waaw mais bi may bi may bi may kii ci bi may bi may ñu trouvé question bi rek. fekk moom wax na ko. fekk moom moo tax il faut nga gaaw a bës. kon moom nga gaaw a bës il faut nga gaaw a bës. non non dama bës affaire bi nag mu xaw a. waaw noo ko gisee. non xam nga xelu gu ne xelu mag bokkul. léeg-léeg nit ñi dañuy seen xel day xaw a lamber léeg-léeg. dëgg la mu am benn genre film. ah xelu mag day xaw a lamber waaw day xaw a lamber léeg-léeg ñoom film mémoire ko yow. ma ne waaw. nous sommes du même âge même âge. ah, ah. il ah a 58 ans j'ai 50. on bi nekkul foofu de. <laughs> dëgg la rapidité la. Ah, ak concentration. dëgg la parce que man sentir naa ne mi ngi bës. ma gaawantu. ngay sàcc. <laughs> xam nga Yacoub nekk. maa la ko wax arbitre la mujj nekk dafa mujj gaaw. <laughs> alors ñu daal di dem euh, Mao euh, képp ko xam ne bëgg nga bokk ci émission bi da ngay woote ci 70 455 17. 28 70 455 17 28 Maawo da nga may yónnee way dama am way woo xam ni moom laa bëgg a déglu daal di dellu si léegi léegi Maawo bu dee mën naa am way bi. alors léegi nag damay ñëw ci maanaam turu mbër mi ak écurie mbër mi dama lay wax mbër mi ah maanaam kan la nga wax ma. Euh, moom mooy kan ak ci ban écurie la bokk dangeen koy xool à l'écran ma àndandoog Mao àndandoog euh, samay sponsor xool leen rek ngeen wax ma mbër mi kan la Mao saa yoo pare ñu daal di dem attention mbër mi kan la ki njëkk bés mooy Babacar Diop. Bruce Lee. Bruce Lee ma ñëw ci ñaareelu question bi Bruce Lee ci ban écurie la bokk Babacar Diop. écurie <laughs> Babacar am na fi 20 points tàccu leen ma ko bu baax a baax a baax a baax moo tax ñu ne yëf yi ku gën a gaaw la mbër mi kan la aywa Saliou Ba kii kan la kii Xaadim Ndiaye numéro 2 nekk jaara naka Xaadim Ndiaye numéro 2 Xaadim Ndiaye numéro 2 am nga fukki poñ yaa ngi soog a dugal fukki poñ moom ci ban écurie la bokk ku xam na bés Babacar Diop Caaroy sur mer Caaroy sur écurie Thiaroye sur Mer déet moom ba mu bosam moo tàkk kon Babacar bàyyi ko mu jël fukki poñ yi bosam moo tàkk boo bësee rek day tàkk d'accord attention Mao ñu dem ci beneen kii kan la mbër bi kan la Babacar moo tàkkale oh. Ibou Senghor numéro 2 Ibou Senghor numéro 2 dëgg la Ibou Senghor numéro 2 attention ci ban écurie la bokk Gana Seras. déedéet waroo wax kii moo wax Ousmane Diouf moo bës. Ah, Gana Seras kon yow da ngaa ñëw rek wax moom mu bës kon moom moom moom fukki poñ. attention ma daal leen wanaat beneen mbër maaw. ah. Cobra bu Pikine mbooloo. naka. Cobra bu Pikine mbooloo. ñaar yëpp la joxatoo xaarul sax beneen bi moom la Cobra Pikine mbooloo kon pour Saliou Ba qu'on applaudit s'il vous plaît. ah daanaka loolu ah maaw ëpp na de dafa mel ni gars yi seen yaram commencé naa tàng mais balaa may continuer kii kan la bi balaa may continuer dama bëgg Moustapha Gueye xool score yi Babacar Diop mi ngi ci 60 points Ousmane mi ngi ci 10 points Saliou Ba mi ngi ci 30 points mbay Mbaye takk na ci 20 xool euh, génération yi da gis ne kon euh, Babacar euh, Diom bi dafay liggéey ci internet donc dafa am intérêt trop di nelaw ci internet bi ci fanaan di ci yendu. xam photo yëpp fa lay jaan xam lépp. bu ñu yëkkëpp expérience nag ci làmb muy Zal Ba muy ismaan ak muy Pape Mbaye yëpp ñu yëkkëpp expérience waaye domaine bi nga dugg léegi ci la commencé yeewu. Ousmane daal moo moo moo desee yeew te Ousmane nag yeew yow la xaar nga yeew Ousmane. <laughs> noo ko gisee. non mooy li ma wax rek euh, il est alerte parce que comme yëf yi moom njëkkante la. Euh, ah. bu ñu wanee image bi rek. Euh, nga ah. gis ne mu njëkk bës. mais liggéeyam moo ko may. waaw liggéeyam aussi parce que à partir des images aussi parce que boo xoolee avec les nouvelles technologies yooyu tout site ah. internet yooyu. véritablement ñoom ñuy alimenter li nga xam moo di en contre 30 moo ko gën a jege 30 points de différence donc il est bien parti euh, Babacar Diop. ah dafa mel ni moom mooy Barça ñi ñooy Real Saliou mooy Real. waaw moom lay durale non Ousmane Ousmane. yow yaay ah? yow yaay Real kon yaa raw. waaw kon boog Babacar rey Real. yaay Real yaa équipe bu mag bi Babacar. yaa raw 60 alors kii kan bi jeex kii kan la bi jeexagul. xool leen bu baax ba noppi concentré wu te teel a bés. maa wo ñu daal di yónnee waat kii kan la. alors Saliou moo bës kii kan la Saliou. kii Malick Niang bu Yoff. Malick Niang ak Yoff daanaka marqué na moom it 20 points fi mu toll nii. attention Mao ci concentration ba tey ñu yónneewaat beneen mbër. Papa Mbaye. ah kii nag Mbaye Guèye la Mbaye Guèye junior. Mbaye Guèye junior nekk ci ban écurie. double double S. Ah, moom moo écurie double S. parce que da nga waroon bës. waaw d' mais ba écrit Double Less bàyyee leen waaw mais manqué nga foofu fukki poñ. attention Mao ñu yónnee avant dernier kii kan la. dëgg la Saliou Ba ci ban écurie la bokk. dëgg la Babacar Diom écurie Waalo la bokk. <laughs> c'est la concentration. tàccu leen leen may leen leen loxo bu baax a baax a baax a baax c'est la concentration. attention ñu tëj nag ak li nga xam ni moom moo di kii kan la kii mooy kii kan la bu mujj ñu xool ko à l'image waaw Saliou ah Lac déet Saliou moo ko Lac Rose aca beneen Fass dëgg la Babacar Diom moo joxe Fass kon yow Saliou am nga fukki poñ Babacar am nga fukki poñ daanaka affaire bi nag <laughs> kan moo gën a gaaw alors dama leen di bàyyi ñu souffler tuuti euh, ma xool euh, euh, ma xool ak sama xarit sama xarit Babacar mi ngi ci 80 mais Saliou dellu si na de. waaw Babacar ak Saliou dañ leen di siif parce que boo xoolee Saliou mi ba mi ngi ci 70 Babacar mi ngi ci 80 Papa mi ngi ci 40. parce que boo xoolee à l'entame Pape Mbaye moo commencé woon la différence mais Babacar euh, dafa moo leen gën a comprendre. maanaam euh, rapidité bi ak concentration bi. parce que waaw c'est vrai si bës bi la mais ku njëkk bës morom rek ay ay cliqué. donc du la différence parce que il est très alerte parce que moom déjà que moom boo xoolee le temps sax ñi jeexal image bi sàcc na gaa yi dem. voilà kon yëf euh, dafay foqati. ndax foqati ma 20 points yi nga xamante ne Saliou Ba la ko jëlee parce que Saliou Ba moo wax mbër mi waxul sant waxul écurie ba mu profité ci dugg ci des mu ma di waaj ba mu profité ci dugg donc Babacar jël na 20 points yi nga xamante ne mooy Saliou Ba Saliou aussi jël na sa petit point <laughs> exactement alors c'est bien dit alors dañoo am ay daanaan yoo xam ne tamit dañ leen di invité ñuy ñëw di bokk ci yëf yi am ndaanaanu làmb boo xam ne bu jëlee micro ci làmb bi ñëpp békk mu di ndaanaan boo xam ni it dañu koo séddoo nekk ku baax ku yiw ñu koy wax Aïda Ndiaye bëgg fàllu Aïda bëgg fàllu ma di ñaan ñu tàcc ko bu baax a baax Aïda Ndiaye bëgg fàllu c'est maintenant ngembul bare bare di jigéen bi ji doo seen bara billaay ngembul bare ngembul bare tegu bare mbar mi jigéen bi ji doo seen moro samba yaa e ne doole bare cey laa sër naay naari gori takk nanu leen ku mën a war na nga yeeg boo mënul te nga toog papa Abdou Fall papa Abdou Fall mag bi promoteur yaa ngi nii Alaaji Faalay sa baay yaay ma ne Fall sa yaay baayu Mouhamed Fall laay way man de sama promoteur baa ngi nii Mbay Fall waaye papa mbaay man de sama buur gewel yaa ngi nii ci kaw toog eye la Aïda Ndiaye bëgg fàllu bu baax a baax a baax a baax di kontaan ci moom di rafetlu teewaayam daanaka dina dellu si ci kanam incha allah Aïda Ndiaye bëgg fàllu waaye nag gënoo ñoo bëgg fàllu dégg nga Aïda ma yóbbante la boobu wala daa muus rek gënu ñoo bëgg fàllu de mi ngi ànd ak Jaxat mi ngi ànd ak Jaxat Ndiaye Jaxat Fay Jaxat Fay waaw ah, te mu njaxat fay ak ayda kon nag ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax léegi nag damay jàll ci question yi nga xam ni moom mooy question culture générale culture générale waaye ba tey ci làmb la ñu ne kan mooy premier vice président bu CNG bi ah déet <laughs> aca Saliou Saliou yow la yaa bës ah. Saliou bës yow wala waxal Saliou kan mooy premier vice président bu CNG de lutte Thierno Kane Thierno dëgg la mais. mais chargé de la lutte avec frappe chargé de la lutte. non non xaaral xaaral xaaral. kan mooy premier vice président wu CNG de lutte. Thierno Ka. ma ne Papa Ousmane. yow da ngaa defe ne yaa ngi classe. def nga ni Thiel def moi monsieur moi monsieur moi monsieur moi monsieur mais yow ban école nga jàngee. bari yi nga jàngee bari na. non ban école nga jàngee primaire. primaire waagu ñaay 3. waagu ñaay parce que da ngaa tàmm ma monsieur ma monsieur waxuñu ma dañ ne la bësal buzzer bi. Thiely tamit keroog dafa ñëw xam réponse bi taxaw fii ma ne ko mais Thiely alors mu ne ma moi monsieur moi monsieur moi monsieur. waaw mais moi monsieur du joxe tontu bi. da bës ngir mën a am tontu bi d'accord ñu jàllaat ci beneen. la culture générale man dama nekkoon commissaire général ci wàllu sport nekk secretaire d'État jeunesse et sport 18 juin 1969 ba 5 avril 1973 man la kan. François Bob. déedéet du François Bob. Babacar Diome. Cheikh Tidiane Ndiaye. déedéet du Cheikh Tidiane Ndiaye man ma remplacé le ministre Amadou Mactar Mbow. Papa mbay Euh, Ousmane Paye. déedéet. Abdoulaye Diop may ma tuuti ma indiwaat beneen indice. man nekkoon naa fi maire bu Ndakaaru. Babacar Mamadou Diop. déedéet doucement waaw ba Papa Mbaye déglul bu baax leen bu baax dama nekkoon commissaire général au sport nekk secrétaire d'État jeunesse et sport juin 1969 ba 5 avril 1973 man m'a remplacé le ministre Amadou Mokhtar Mbow xam nga loolu yàgg na man nekkoon naa maire bu Ndakaaru Babacar Ousmane déedéet maa koy bi ñu nekkee xale dañu daan way naan koo leen àndal Lamine Diack ku ci topp Aram Jeen koo leen àndal Lamine Diack ku ci topp Aram Jeen koo leen àndal Lamine Diack ku ci topp Aram Jeen koo leen àndal Lamine Diack waaw waaw Cheikh <laughs> Tidiane ba nga départ laa ko dee Moustapha. ba ma départ laa ko dee la c'est parce que c'est dans le temps. parce que loolu maa ngi rappelé bu ñu gën nekk gune. Uh-huh. nekkoon à la Médina. Uh-huh. à la rue 1 dama daan tëdd ba guddi. Uh-huh. Euh, jamono élection la yaakaar na on était très jeune à peu près ay 3 euh, ans comme ça. dama daan dégg wooy boobu ku ngeen àndal Lamine Dia ku ngeen àndal Bourgi. waaw. yaakaar naa ñoom ñaar ñoo doon xëccoo jamono boobu. Lamine Diack ak Bourgi ak Bourgi je pense bien quelque chose comme ça. ñoo doon xëccoo mairie bu Dakar. voilà c' était su ma jumul yaakaar naa loolu. dëgg la voilà donc président Lamine Diack. donc loolu question de culture générale d' alors ma dellu si waat ci kii kan la ba tey waaye bu ni mel laa leen di indilaat nga xam ni xel mi dafay balax bu baax a baax a baax a baax a baax man dama di administrateur civil dama nekkoon secrétaire général bu SONES ba man dañ ma fal le 5 avril 1988 ba 2 juin 1993 ministre des sports ministre jeunesse et sport waaw Abdoulaye desandi ba tey ci biir foofu ci question de culture générale man dañ ma fal 4 novembre 2002 ba 22 juin 2005 ministre d'État ministre des sports Saliou Ba Issa Mbaye Sam déedéet euh, Alaaji Papa Mbaye euh, Joseph Ndaw déedéet man maa remplacé le ministre Joseph Ndam Babacar Youssou Ndiaye dëgg la monsieur le ministre Youssou Ndiaye l'ancien ministre des sports ministre d'État ministre des sports Youssou Ndiaye ah les questions de culture générale. ah ma nga noonu. ah foofu foofu gën a metti. foofu euh, bu ñu weesu dañ lay woon ay indi indices nga xam ne à travers l'image boo gisee rek war nga mën a xam kan la. dëgg la mais bii day am benn suspense bi nga xam te moo ci am et la culture générale euh, mën nga nekk ci làmb xam ko mais par rapport ak question bi ni ñu koy tëralee xëy na boo amulee benn genre. Euh, concentration concentration. benn courant buy def ci voilà te mu ngi noonu te dama gis nii que Ndom. Babacar Babacar moo ci voilà moom moo ci gën a féete gune. Ah ah. moom daal moo ci gën a alerte daal ba tey. dëgg la Moustapha ah, waaw c'est ça hein, euh, Babacar euh, mi ngi tànk. 90 woon tout à l'heure ak Saliou Ba. ku nekk 80 mais Babacar nag ci culture générale bi yaakaar naa ne bu gënee concentré wu ci lool rek. Euh, dina dépassé gars yi parce que actuellement ni nekkatul naataangoo. attention wu mbay nekkatul naataangoo. mais c'est que li ma jaaxal nag kenn rawul Babacar 90 Saliou 80 Papa Mbaye 40 te ñëw bi dafa gaaw Ousmane 20 te ñëw bi dafa gaaw kon nag ñu dem ci beneen question de culture générale newoon naa fii lu ko dalee 12 juillet 2005 ba 12 décembre 2007 ministre des sports. Babacar Diop déedéet bàyyil ñeneen Babacar bul tontuwaat bàyyil ñeneen ñuy tontu alaaji Papa Mbaye alaaji Papa Mbaye may ma tuuti ma ñëw yéen ñaar di digg waaw may leen ma may dolli leen indice du dëgg dama nekkoon directeur général u Africamer dama remplacer le ministre monsieur Macky Sall euh, alaaji Papa Mbaye Daouda Faye El Hadji Daouda Faye Vava cinquante points nee naa la ñëw bi dafa gaaw mhm. bii sax daanaka moom mooy gën a leer ba tey ci ki kan la fan la siège u comité national de lutte de gestion de la lutte nekk. stade Léopold Senghor. stade Léopold Sédar Senghor. dëgg la mi ngi si 90 ëppate la damay taxaw foofu 90 Saliou Ba 90 Babacar Diop 50 Papa Mbaye 90 90. waaye defe naa ni ci question bii di ñëw mën na am ngeen tàqali ko. attention dem leen ci con concentration bu doy ndax lii ma leen di bëgg a laaj xam ngeen ko lii nga xam ni moom moo di dopage naka lañ ko teree ci làmba ji déglu leen ba noppi dañu ne ndax mbër yi tere nañu leen dopage bu kenn doppewu wala mbër may nañ leen ñu doppewu tuuti rek wala mbër yi may nañ leen ñu doppewu formellement ku ci xam ah kële moo bés alaaji Papa Mbaye waaw dañ leen tere dopage carrément. dañ leen. dañ leen ko kenn ci droit. doppewu amu ci droit dopp. kenn amul droit. kenn amu ci droit. tàccu leen alaaji Papa Mbaye. le dopage est banni dans le sport. kenn amul droit jël benn produit boo xam ni dalay yokk doole yokk la kattan nga mën say morom. waaw tellement vrai parce que boo xoolee sport dafa war a doon euh, maanaam euh, benn discipline nga xam ne c'est sain parce que boo xoolee euh, dopage dafa di lu nga xamante ni la longue. Euh, day mën a un petit laa ko mën a waxee day mën a. Euh, yàq yaramu day yàq yaramu yaramu yaramu athlète bi. Mhm. mais au la day fossile nga xamante ni sax moo di euh, maanaam les pronostics parce que tey jii boo jëlee yenn ci ay garab ay anabolo ay anabolisant wala ay. ay mbir yi nga xamante ni effectivement day yokk sa performance loolu dafa li nga xamante ni charte sport da ko daal di tere ba tax na ak sport bu mu mënti doon muy làmb di football ak lu di mel chaque fois bu nga xamante ne def nañu li nga xamante ne moo di compétition gars yi dañuy ñëw dugal leen ngir mën a xool exactement ndax doppe nañu ou pas bu fekkee doppe nañu donc jox la ay sanctions donc loolu gis nañ ko benn bu dul ñaar yoon ci football. làmb moom c'est formellement interdit que dopage. Moussa Fage. bu baax loolu déjà tricherie la tricherie ànd ak sa morom ngeen bi yem ñu jox avance jox ko avance moom muy lekk ci ceeb bi naan ci ndox bi di entraîné fas yéene bëri jeeg ak ngorom ak yaram boppam yow nga dem multiplier sa bopp par de pour ñëw noot ko déjà rek du yëfu gor. benn waaye nag loolu tamit nañ ci encore joxañaat bu benn baaraam ata euh, euh, talaat la ko CNG dañ ko essayé def les tests benn yoon ñaarul ñettul. boobu léegi sa fait deux ou trois ans dañ bëggoon nag ñu dellusiwaat wanawaat ci wanawaat ci rigueur wanawaat ci constance boo xamante ne na tax mbër yi kenn du xalaat am combat di préparé wu loolu. test dopage. test dopage commencé nañ ko defoon nañ ko Lac Rose ak Sa Thiès dañ ko tàmbalee man maa yóbbu woon Lac Rose mu def def urinam après amaat na benn yoon mais amaatul boobu ba léegi waxaatuñ ci lu ñu fàttale comme Sénégal liñ tàmm rek bu dara xewee ñëpp jóg yuuxu ca bu dee musiba su passé deux mois trois mois gars yi jëlawaat ci fekk nekkul lu baax. donc dañu war a taxawaar loolu gën ko saxal di gën a xoolaat xale yi. c'est important parce que ci athlétisme boo dawee ba ñëw rek léegi léegi dañ lay dugal ci contrôle antidopage. exactement c'est malheureux nag que Sénégal commencé nañu ba song ko benn yoon ñaaratul ñettul te wax nañ sur tous les toits ba ñëpp concentré wu mbër yëpp changé gis mbër yi nga xool moment boobu rek mbër yëpp dañoo dellu si waat à normal nekk ay yor seen taille yor seen gabarit léegi nag commencé waat nañu mbër yi jaar seen ay gabarit hmm. donc na CNG tax ñu waat tànk delluwaat seen gabar yi. dëgg la damay ñëw ci question bi nga xam ni moom moo mujj ci wàllu kii kan la alors damay am benn laaj boo xam ni laaj bu spécial ci ñetti date yii 21 mars 1993 21 mars 1994 21 mars 1995 ci ñetti date yi ci ban date lañ ci créé. le comité national chargé de gestion de la lutte ah Alaaji Papa Mbaye moo bës. Euh, Alaaji Papa Mbaye en 1994. pardon. 14 1994 21 mars 1994. 1994 dëgg la Alaaji Papa Mbaye marqué nga fukki poñ. jërëjëf Alaaji Papa Mbaye léegi léegi ñu def benn pause publicité soo ko dellu dellusiwaat ci kanam tuuti.